jërë ngeen jëf mbokk internet yi Naar Fall mu ngi leen di nuyu di amaan mbégte contentement di jàkkaarloowaat ak yéen ñu nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di nuyu kilifa diine kilifa aada yi di ñaanal ñu faatu yàlla jën ba leen xaareen aljana ñi nga xamante ne ñoo tawat yàlla na yàlla fëgg seen bopp ñu ci ab féete ginnaaw mbokk yàlla na suñu borom génnee ba ñu dellusiwaat suñu biir ñu leen koy defal comme ni leen ko daan defalee waaye laata boobu dañuy nuyu ñi nga xamante ni ñooy suñu sponsor ñu ànd ak ñoom ku ci ni waa gërung okoy mi ci baax bi nee naal ko def sa tool mu naat ku ko def sa tool picc du la sonal ku ko def sa tool gunóor du la sonal te li nga ci bëgg di nga ko am. di nuyu waa Touba Kër Niang communication chez Mamor ñuy jaay yu baax yi te dëgër nee naa seen place ma nga ca Colobane ak ca Tëngéej moo demee Colobane ña nga ca cantine numéro 348 nga dem Tëngéej ña nga ca jardin public ba dañuy jaay en gros di jaay demi gros di jaay lépp luy accessoire jëm ci téléphone en même temps di réparer téléphone ñu leen di bégg bu baax a baax waaye mbokk yaakaar naa tey kii ñu toogal. làmb namm na ko ki ñu toogal amateurs yi namm nañ ko ki ñu toogal tey yaakaar naa ne xale la boo xamante ni marqué na empreinte am ci làmb def ci làmb loo xamante ni làmb reconnaître na ko bu ne kuy sa baay ñu ne Robert ka mooy sa mag ñu ne Mbagnick wala ñu ne ki nga xamante ni mbokk mooy mooy di Ndiaye loolu rek yaakaar naa ni doy na champion moom lañ toogal fas yéene waxtaan ak moom mooy kan Ablaye Ndiaye fils de Robert doomu Joal bi nuyu naa la siyaar waaw dellu jaar naar xam nga di leen gërëm di leen sant yéen ñu fi ñëw di leen wax massa coono quoi waaw tamit di nuyu waa Joal Fadiouth Île du Saloum xam nga di nuyu lu waa mbuur ak Petite Côte bi yëpp lu ko wër xam nga di nuyu sama waa kër sama soxna sama sama papa bu baax xam nga di nuyu tamit waa Joal Fadiouth bu baax a baax a baax a baax parce que nit moom amoo ku dul sogal nit mënu si dara nga ñëw Yaxya Diop nekkoon fa ak li mu def ci làmb ku ne xam nañu ni nekk na roi des arènes pendant de quinze ans nekk sa mag def ci yow lu bari jamono ji Yaxya Diop bàyyi bàyyi bàyyi na làmb bëreetul maanaam seen diggante yéen ñaar yéen affinité ngeen am sa digg en tant que sa grand nekk Joal ngay yëngu ci làmb mu ëpp la ci expérience est-ce que Ablaye Ndiaye warul di déggante ak Yékini lu bari wala lan moo waral seen ñàkk déggante yéen ñaar di di dox yenn jéego rek maa ngi woon Maroc waaw. moom daawul jékki-jékki na xaarum woo sama raq ji comme que ci làmb la te beleesan ci si biir belees. ayca macha allah diggante ma Yaxya Diop Yékini jàmm moo ci am yaakaar naa comme war nañu mën a xaar sa combat bi Yaxya Diop Yékini indi la. waaw war na mën a nekk. Mhm. waaw war na mën a nekk. Uh-huh. Mhm. mais nga raar ci làmb ñëpp di xaar retour Ablaye Ndiaye mu ñëw jël ki nga xamante ni mooy Paul. Paul Maurice xaw ma. wala nga jël Maurice. Maurice waaw Maurice nga jël. est-ce que Ablaye Ndiaye retour am warul woon xool ci di gën a yomb mu ñëw jël Maurice Maurice ku ko xam-xam ko ci xeex. Mm-hmm. Maurice ku ko xam-xam ni day bëre. Mm-hmm. Ablaye Ndiaye ñëw jël Maurice la moo tax suwaa bi nekk Maurice. mais qu'est-ce tey Maurice moom mbër la comme yeneen mbër rek parce que Maurice man ñu ma war a bële ji ñoo ñoo ëpp doole Maurice. Mm-hmm. ñoo koy dàq xeex yi xam nga tamit comme su ma jëlee Maurice nekk loo xam ne ne ay risque la wala dara làmb la. Mhm. làmb la waaw. làmb la. Mhm. <laughs> mais sa diggante Gris 2 nga ñëw ñëpp ne Ablaye Ndiaye Gris ab lay njaay Gris ab Ablaye njaay ñëw ñàkk combat boobu yaakaar naa benn défaite boobu nga amagum ci làmb. Mhm. défaite boobu ba nga ko amee lan la def. non na mais xam nga ñaari ndaw yi doon dem la. waa di ko nuyuwaale moom Gris 2. waaw di ko nuyuwaale bu baax. xam nga comme ñaari ndaw la woon. parce que ñaari ndaw moom bu ñuy jóg foog kenn ki taxaw kenn ki dem te yàlla daa def suñu borom moom la mayoon ndam xam tamit loolu dañ koy nangu rek parce que suñu borom mooy maye tey su yàlla tuddoon ne man maay daan nit mënu si dara waaw suñu borom moom la may ndam xam nga acca ana père père Robert. père mu ngi fa. mu ngi si jàmm waaw mu ngi fa di bëgg cere. ak laax rek. ndax yoo xam ne mu ngi ci wàccaay instant yi moom yaakaar naa mu ngi ci wàccaay. waaw waaw moom mu ngi ci moom moom chaque jour mu ngi suñu ginnaaw quoi. Mhm. Mhm. mais ñu gis tey nga ñëw ci face to face bi rangoo sa sër. sër lu mu doon Ablaye. waaw ñun c'est normal ñu rangoo sër parce que ñun ñi ay ay séeréer lañ ñun suñu cosaan lañ xam. waaw te boobaa bés ba la cosaan yi di gën a feeñ sax. incha allah incha allah waaw. ayca laa leen mën a xaar sa digganteeg Maurice yaakaar naa ci luy baax lay doon du am roq bu set. ah waaw bëre dóor de lañ wax te bëre dóor moom foog naa xam na suñ ne événement moom am na weqante am na lépp. mais mhm. lii bëre dóor. Mhm. suñ ne bëre dóor moom. jeexal jeexal na wax bi laa mun a wax. mais ñëpp na Ablaye bu ñëwaatee day perte repère ndax gëj gi mu ci làmb. non ay ay ay mbër lañ dañoo yàgg si làmb. Mhm. man maa ngi doon mbapat. maa ngi doon mbapat arène nationale. non non. bëree góor. si na de. waaw mais loolu garaawul ah. loolu garaawul ñun mbabatkat moom boo koy wax ay waxu suuf da ay retaan nga koy def. Ah. parce que fee ne Adrien Senghor gis nga ko daa fees del ak suuf da ngay jalu. Mhm. waaw macha allah moom mbër buy mbabat moom boo ko waxee waxu suuf da ay retaan nga koy def sax. Mhm. Hmm, parce que ñoom mun nañ bëree suuf. Mhm. suuf moom mun nañ ko bëree. macha allah sa combat jafe woon Assane Ndiaye ñëw décroché ko ak waa Bawol production lan ngay wax la promoteur Assane Ndiaye. waaw Assane di ko wax ne si kaw si kanam rek parce que Assane moom nu ngay gis nii moom moom dafa xam làmb te day doxal làmb. waaw xam nga di ko gërëm di ko sant di ko ñaanal avancement yéen it di leen di ñaanal avancement li ngeen yor nii mu gën a yokku parce que yéen a koy def yéen a ngi def seen liggéey daal waaw. kontaan nañ ci yow kàddu yi. yi mu ñu waa xam di gërëm Mbagnick pool maamadi xam di gërëm sama mag Mamady di leen gërëm ñoom ñëpp ak famille bi xam nga tamit di leen di jaale maire bi comme lu may wax sànq rek parce que maire bi moom sosoon na si ñun surtout sama genre yi. parce que tey jii rek am na lu mu def si man su ma doon génn di dem dina jël kaasu ndox wax lu muy jox jox ma mën naan dem xam tey ba ma demee war a nii rek gisuma. bi a nekk sa première sortie. boo xamante ne daa daa xaw a daa xaw a daw moo tax ba ma xam nga am na benn yaa un certain moment sax sama xel mu ngi nekk ci moom mais xam nga dañuy gëm yàlla tamit di xam ne ne moom mooy dogal quoi. yan yan ngeen amoon yéen ñaar. non loolu moom loolu moom boo bëggee dégg-dégg maire moom nu ngay gis nii. yàlla daa daf maa natoo daf ma ko natoo man xaw ma kenn man xaw ma kenn maire bi rek laa xam bañ na ko ba su ma demoon du nelaw bilaay walaay day toog xaar mu ñëw ba mu xam ne ne ñëw naa ba reer ba pare muy soog a tëddi xam nga ñoom maire séeréer cosaan yi lañ xam. xanaa yaay caat. waaw man dafa nekk. caat maay caat bu góor waaw. waaw maay caat bu góor waaw. ngay ñaanal yàlla yërëm ko xaare ko àjjana. foofu mu tëdd gënal ko fii mu jóge mhm. njaboot gi yàlla teg ci loxo ndax suñu yaay la ñun ñëpp. Mhm. ndax yaakaar naa yaay moom fekk ñàqoo ko doo xam li nga xamante ni mooy li ci ñàq yaay. Mhm. mu nekk loo xamante ni lu diis la ñu lay masaw di la ko jaale bu baax a baax a baax di ko jaale sa mbokk yëpp di la wax rek euh, nga tàggoo. waaw xam nga tamit lu nga wax loolu lu rafet la maa ngi la siy sant di la gërëm xam nga comme nag suñu borom moom paa bi lañ fi bàyyil. nañ nañ nañ nañ des ak paa bi rek toppatoo ko. parce que yàlla moom bu la bu bu nangoo ci yow dara rek bàyyee ko boppam xam moom mooy maye mooy def lépp su ko neexoon tey maire bi du dem. mais comme suñu borom moom dara tëwu ko dañuy sant di ko gërëm di ko gën a santaat di ko gërëm di ko gën a santaat di ko gërëm parce que yàlla moom kenn la. waaw yàlla moom kenn la. xam nga tamit di gërëm waa Joal Fadiouth yëpp yëpp yëpp yëpp Petite Côte beeg ñëpp parce que xam nga bugguma tamit di lim juum. Uh-huh. parce que laay bu génnee ñëppay génn. Mm-hmm. laay bu génnee ñëppay génn. muy île bi muy village yeeg ñëpp mm-hmm. xam di wax ne tamit lii benn présentation la woon rek. Mm-hmm. waaw parce que képp ku si ku ma si war a citer tamit te déggoo ko xamal na ne kii ñu ngi ñëw. Euh, des na yeneen jotaay. waaw parce que temps bi mayuñu ko quoi. Uh-huh. waaw di wax ne tamit gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp waaw. ayca jërë ngeen jëf mbokk yi li leen leen indiloon ñu nag Ablaye Ndiaye yaakaar naa ne namoon ngeen ko waaye dégg ngeen ko ci li nga xamante ci la nekkoon ak ci li nga xamante ni ci la jëm mooy nuyu bu baax Serigne Samba Ndour borom Touba di ko souhaiter joyeux anniversaire borom vingt 28 di ko wax dundal loo dund doyal la jeune Mara di leen jox dig daje beneen yoon di gërëm sama caméraman Badou fay